Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse quel honte pour la jeunesse jeunesse su réew mi ñu waxante dëgg ñun danoo jàppoon ni boo nekk ministre de la jeunesse da ngay ñëw di former jeunes yi mais aussi di leen yee mais aussi ubbi leen ay yoon yoo xam ne dinañ ci mën a jaar pour tekki mais aussi li jëm ci wàllu citoyenneté jeunes yi gën a bëgg seen réew gën a doon ay patriotes ñu lay xar foofu mais nga ñëw yow yaay pousser jeunes yi ci riposte ci riposte ñu ne lan ñu ne non dañuy créer brigade de riposte yow gouvernement combat ak attaque nga mujjee ci brigade de riposte ki doon combat ak di attaque bu demee bay riposte amatul doole waxoon na krog da nga nax Macky Sall mënoo leen ko indil tous dimbali leen Macky Sall li xew ci réew mi yëpp est-ce que Macky Sall comprendre na. da lay pousser ci lu ne nga dugg ci parce que li ñu defal Sonko ak li xew démb xew la 16 xew la 2 mais loolu day avantage Sonko adduna bi yëpp ñu ngi ciy wax communauté internationale ñu ngi ciy wax mais loolu kan lay wàññi Macky Sall Sonko bu ko neexee na feebar feebarlu na yeew tànkam xolal takk boppam xolal jël perfusion def ci yaramam mais ñoo ko may occasion boobu na tëdd ut certificat médical am comme ñoom ay cuune lañu. ba yenn saa Ousmane Sonko lu mu leen lalal ñu daanuti démb wax naa ko benn waay damay ragal ñu naan usmaan Sonko prison prison prison prison prison ba Ousmane Sonko dugg pale bi te duñ ko yëg ndaxte bis jéego bu ñu teg rek ñi ngi jege élection yi te liñ bëggoon ci usmaan Sonko mënul ne benn góor nag wax na mu wax ju rëy benn góor ne ma géey ma ne ma ne waa ji ndey ma liggéey de. mun ma neexul toroxal de kilifa ma ko wax kilifa gu xam dara nag moom ma ko wax mun ma a liggéey de neexul toroxal de mun ma njombar la de mun ma njombar mën nga ñu ko rëbb de waaye boo demee ba ko jàpp rek day tëb dalaat feneen te waa ji ngi tëb rek parce que mars 2021 la nga ko bëggoon a tëj ba tey ji mun ñu ko tëj kaso mars 2021 diggante bi dem na ci local duma leen dem na ci législative duma leen lenn ko desee mooy présidentiel ci bu ko yàlla dogalee kenn mënu ci dara mais malheureusement ñun suñu réew li gars yi war a taxaw dëgg-dëgg taxawun ci mooy fulla gi ak fayda gi mais kaaraange askan wi boo déggee ñu naa la force reste à la loi force reste à baax na mais force reste à la foi tamit baax na maanaam foi nit day am foi mais man dama yaakaar ni gars yi danoo desee am diine danoo desee am ngor danoo desee am yenn moo tax ñuy dugg parce daa am loo xam nit ki bu amee diine am ngor da koy jombale boppam da koy jombale boppam pour plusieurs raison parce que am na ci loo xam ne gor du nga ko jox lépp mu jël lépp bu dee nguur gi dafa jeex kenn mënul teemu jeex dañuy ñaaw ci xare bi rek te Macky Sall ñi ko topp ñoom est-ce que ñoom ñëpp ko bëgg parce que lii ñu koy dugal yëpp ak yi xew yii yëpp depuis que nag amadu Ba jiite gouvernement bi war nañu poser ay question qu'est-ce qui se parce que li ñu gisee nguur gi taxawee ko nii ci Ousmane ko mais plus que ñu koy fitnaal plus que nit ñi di ko gën a yërëm plus que nit ñi di ko gën a bëgg loolu il faut ñu bàyyi ci xel lu amoon du amaat a démb li xew li xew lan mooy xewaat la 30 xamuñu yàlla na jàmm xew réew mi doon fi Auchan doon fi Total moo gën doon fi nit a démb bi booy di rajaxe gars yi biens yi sénégalais yi am di magasin sénégalais yi sénégalais yi xam ne ñoom la Macky Sall yaakaar pour ñu woteel ko sénégalais yi xam ne ñoom la Macky sàll jàpp ni li mu doon ñoo ko def sénégalais yi xam ne Macky da leen war a liggéeyal di nga démb bi manifestation yi amee lu yéeme lay seetlu seetlu la nag bu ma def mooy total Auchan la gars yi di surveiller léegi yeneen sénégalais yi am seen alal ci réew mi nag ah <laughs> kon léegi daal protéger France. moo war a ngay gën a sentir ni ñu ngi koy protéger sénégalais yi man anuma ku ci ku yàq mais bu ndee mbay protéger nan protéger bien wu sénégalais yi protéger Auchan mais léegi dañuy fexe ba Auchan am sécurité fexe ba Total am sécurité fexe ba leneen la leneen am sécurité léegi les sénégalais ci situation boobu ñuy nekk tekki lu waroon a gën a di euh, yëkkati nguur gi maa ngi dégg ministre du commerce mu génn di tontu Ousmane Sonko naan réew mi dinañ ko jaarale yoon force reste à la loi mooy seen wax jooju way jooju xam ne way wu amul daaneel la dañ cee tàmbalee di sonn mais na wax ci suukar si amul ci réew mi Sénégal amul suukar man dama bëgg ataaya waaye dem ci guddi naanum ataaya fu mu koy jëlee keneen ak keneen gisoo suukar ci réew mi le miss du commerce waroon na dajeek taskatu xabaar yi wax ak commerçant yi wax leen ni suukar si lii moo ko téye lii lay def ba génnee ko. ñu créer si ñu ut ci solution parce que ñu ngi jëm koor bu buñ koy wax mooy la demande day supérieure ak offre bi soxla yi day bari la moom la tubaab bi naan le mois de la consommation nguur gi war a sëgg ci loolu xool nan la ñuy approvisionner sénégalais yi ba seen dund mat ci lekk ak naan ñu koor ci jàmm ñu ñuy programmeel ay procession ko ci koor technique koor gi nit ñi buñ xiifee duñ jóg ça veut dire non c'est malheureux ce pays man j'ai l'impression que suñu noonu ñoo ñu jiite xamuñu lan mooy priorité lan mooy soxlaay askan wi di nga Macky Sall bu joxoon jeunes yi liggéey ñëpp am liggéey kër yi neex ñuy lekk ba suur di naan bu màndi gëm naa bu Sonko wootee ñu bari du nga toog justice bi tegu ci yoon na teg réew mi ci yoon rek di nga bis bu ko tegee ci yoon wallahi azim dina xam ne yi ay nit yu yeewu lan duñu kuy Sonko di manipuler wala Sonko moo leen gënal seen bopp wala dara dara mais injustice boo gisee ñu koy xeex mooy injustice boo ko bàyyee mu jàll bu dalee ci ma Masamba nga ba nga ni déet dal ci ma Mademba nga ni déet ko injustice boobu mun na law ba dal ci sa kaw may fàttali nag ab kàddu foofu lay tëjee bu Sëriñ Lamine mu ne dans un cent fois foi ni loi la demeure des hommes dignes c'est la prison mu ne dëkk boo xam ne ngëm-ngëm dafa jeex amatul loi gor yi dëgg seen dëkkuwaay mooy prison mbokk yi kon di bàyyi xel ñi ci prison bi di ñaanal Pape Ndiaye suñ borom génnee ko ci jàmm euh, mu laaj taxawaay tamit kon euh, topp maa ngi lay gërëm di gërëm Modou di gërëm ab laay di gërëm euh, solution info TV yëpp ñi ñuy àndal ci liggéey bi di jégalu bu baax nag bu dee ni nag danoo juum wala danoo wax kàddu yoo xam ne waruñu koon wax ñi ngi jégalu nit la ak njuumte yenn saa yi aussi yaram yu xaw a tàng mais ñi ngi jégalu di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.